sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi diin bu yewoo samar yi asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu del si waat eh, ginnaaw bi ñu sàkko suñu borom mee ñu fekke waat ba su tey bii dañu ne alhamdulilahi alamin sax ci dàkk def bi ñu mee ñu ànd ba mën a teewaat comme ni ñuy baaxoo di ko def samedi bu jot ci seen programme bi waagaan show seen xarit seen soppe xadi ñang caamin jàkkaarloo ma feggoo sama doomu ndey Mohamed ñang waagaan baay ili góor bëri tur jàmbaar lool bu ko defee ñu nuyu kilifa diine ci réew mi nuyu kilifa aada ci réew mi waaye dañu fàtte imaam a baax njiitu réew mi ak ay ko jàppale waa njiitu kër gi di alhaji Mohamed Dia soxnaam ak képp ku nekk ci kii groupe entire team groupe waagaan ñi teew si di salaam ak kooku di Fatoumata Bah di first lady ñoom ñoo ñi teew ñu mënta teew te seen xel ne fi ñoom it ñu leen di seet bu baax a baax di leen bàyyi xel bu ko defee rek moom ma ma ma nuyu la ziar la waaw ñang baalu ñu ngi lay fay di la bëggee bu baax am kontaan te mbégte rek taxawaat fii jàkkaarloog askan di leen wax rek ñu ngi leen di bëggee nam nañ leen loolu wax dëgg yàlla yàlla na seen jàmm yàgg di wax na ñang baalo ñu ngi nuyu njiiti réew mi comme ni nga ko waxee ak mboolem ku nekk ci réew mi moo xam kilifa dina nga wala kilifa aada ñu ngi lay nuyu bu baax rawatina suñu soppe yi kaatong ba na am dalaay ba kaara ñëpp ñuy bégee mm-hmm. góor jigéen mag ak ndaw ñëpp a ñuy beggee mm-hmm. ta xam naa ni noon ñuy bégee ñu nit noonu lañ leen di bégee ndax buñ sañoon ku nekk mm-hmm. fa nga nekk ñu fekk la fa ne la jàpp loxo siyaare wante ak yow jox la loxo ñaanalante ak yow waaye nag xalangu daw dajul suuf mm-hmm. waaye yàlla xam na ne suñu xol yi ak suñu xalaat yëpp a ngi leen di yëg moo xam yaay nga ci ñun wala papa mm-hmm. wala nijaay wala mag yow mi toog ci sa saal toog ak sa njaboot di ñu bëggee mairie nag ñoo ci raw mm-hmm. mairie ñoom ni ñuy bëggee dafa ëpp macha allah kon yaay booy yéen ñëpp ñu leen di jaar ak képp koo xam ne rek yéen a ñuy bëggee ñu leen di ñaanal jàmm salaam ñang baalo tey dina mel ni sonkoro nga ca Banjul dina mel ni wax la kii mbaxali eh, eh, sipa sipa waaw wala nitatu i ginaar xaw ma ah. naka ko ci waxee waaw ak daxani sipa sipa daxani sipa sipa <laughs> ah, su ko defee rek ñu fas yéene rek bégal leen waaye ma laajte tey ah, fan la liste bi jëm ak fan la ñu jëm tey ñu ngi njëkk a dem seeti di looy seeni daaba dugg si waat ci ba mu demee def weeru nemmeeku ci gox-goxaat ci réew mi mhm. ginnaaw loolu dinañ seeti honorable Halifa Sall mhm. ci li ñuy wax ne dafay dem coalition wala dafa am ñu koy fekk si pour coalition pour ñu ci leeral mhm. tey loolu mooy li Dia maire Boss waroon na ñëw waaye maire Boss dama ko denc parce que bëgguma non xam naa ne surprise moom bàyyee ko gars yi waaw waaw defal ko gars surprise du ma ko mën a indi tey sax ah. waaw dama dem këram mu di ma problème pare naa si affaire amul benn problème ña baalo kontaan nañu di jaajëfal Sidi Salam ak nga xam ne rek moom mooy Yaay Fall waaye nag euh, Salam mooy série Yaay Fall mhm. waaye euh, Fatoumata Babaro mm. mom moy série his excellence président Adama Barrow mm-hmm. ak wagan senior tay ñoo ñu fas dundé dunde gunge ci gunge ci programme bi mm. and ci nag mm. ak suñu xarit suñu soppé mam Cheikh mom keroog daf mo xone dañuy tak mam ji nek momu tak mam cancel kansel Sidi dafa ñëw fi de ma dañuy tak suma mam ajuma nuyul mako ci aljuma gi ma dégg gis status ma laaj ko mu ne billaay man lañ ko mu jimaay Sidi ni mbeugé magge di Sidi moo ma sa présenté benn gelam ko may yow mu daal di ma ko introduce benn gelam de mm. kooku am na ninety six years lu mu gàtt gàtt moom ninety years yi moom du màgget la xaw la paa bi màgget gi mu màgget waxoon naa ko fi dinaa ko waxaat léegi du jàmm de du jàmm de gisagu dara mu jàmm sant ak moom ba mu dem mm. mu ne ma nuyul kii ma nuyu ko <laughs> njàmm sant ba bi dem mm. mu ne ma kii mooy rakk kii ma la doon wax noonu moom laa bëggoon a takk ma ne ko diir ki mooy maama ma yow kii rakkam kooku rakkam sax mën na laa jur yo kam bëgg a takk rakkam mën na laa bëgg na mën na laa jur mu ne ma kii dafa gaaw a weex di waaye du mag ay <laughs> bu ko defee waagaan rek ñu ñu sargal sunu mbokk yi fi ñëw ku mel ni lewru ku mel ni ngóor ñu ngi jot xibaar ne waajuram bu góor dafa wàññeeku mm-hmm. ñaanal ko yàlla xaare ko ci mm-hmm. arjana firdawsi mm-hmm. uh, yàlla jiitu ci seen xol waaye sunu yaay booy mama roxi sengoor moom maa ngi jot xibaar ne uh, doomam bu jigéen moom it dafa wàcc liggéey Euh, koo xamante ne yaay yaay doomi jidleem la moom it euh, dafa wàcc liggéey euh, ñu ñaanal ko moom it yàlla xaare ko ci arjana firdawsi ak Moustapha sun waay la woon sun xarit ñu bokkoon fii ci London mu nekkoon Global Properties mhm. moom it ñu gis si social media yëpp ñu ngi ko dugal tey di ko tàggee ñu ñaanal ko moom it yàlla xaare ko ci arjana firdawsi ak bépp aji jiitu jamono ji métti na te ku ci ne rek mbaay sa non moom kay depuis alarba lañ ko dugal sax waaw waaw depuis alarba alarba ko gis moom si social media la waaw kon mu mel ni kon euh, ñooñu jaar fi ñëpp te génn àdduna yal na yàlla yërëm leen te yéexee ñu mm-hmm. rawatina ngóor papaam ndax ngóor dafa bokk ci programme mm-hmm. kon ba papaam laaxoo ñun ñoo am dëj Moustapha moom suñu nitu bopp la woon mm-hmm. bu baax saa yi bu ñu dajewaat ñu bokk ñu liggéey mu nekk gentleman ba pare bëgg liggéey ndax staff of di jël na ko ay at yu bari Mm. kon loolu moo lay wan ndaanaan la woon liggéey na ba am taraangaam mm. ndeysaan yàlla nag mooy dogal yàlla na ko yàlla xare àjjana amiin ku woon kaf bari ree foo ko gis ay bëjam nga njëkk a seen uh, ku ku nekk na bu génne àddina seedal lu baax li nga ko xam ne ndax loolu la malaayka yi di yóbbu bu tey fii la génnati mm. waaw comme jinne ji moom dañ koy xaar ci ay sañ sa jamono ju ne tey nag moom yaa nga yaa nga yaa Dubaay waaw tey dem naa Dubaay kay ma ma ma eh, king of the king queen of the king eh, di mama Bintu eh, moom moo génne tey fii jox ma ko mama si Siñaan maman Bintu Seye waaw waaw kookoy série IG. déggal loolu moo génn ci lii moo def moo def lii na defati na lu baax waaw solal ba mu baax yóbbu na la Dubaay. waaw waaw ma. ñu dem seeti ko di loo yoo xam ne dawal Ousseynou Dabo. Mm. ñu dem seeti ñibbi seen bi ci biir réew mi. Mm. tertu gu rëy ko tertu. ah tertu nañ ah, ko ah tertu nañ la nag. tertu nañ ko su ma ndaamali tertu nañ la de. paa bi tertu nañ la waaw ko te ñëw waaw defee rek euh, ñu toog xaar euh, ki nga xamante ne mooy honorable Ousseynou Dabo ñu ñëw seet si ko démb ñu ngi gis nañ ne welcome nañ ko welcome bu am doole ci réew mi moo tax tey ñu ñëw seet si ko waaye nag tey bu ñëwee moom dina ma fay sama alamaan sa fajar ba tey maa ngi toog fii su ma duggee rek fugga ñu ne moom ngeen nelaw Mr Dabo dama ko moom dewal réew mi daaba mooy kii ko moom mim réew daaboo ko moom réew mi daaba mooy kii ko moom réew mi daaboo ko moom réew mi daaba mooy kii ko moom réew mi daaba mooy kii ko moom daaboo ko moom

wallahi sonna na yow honorable man tay dag may fay alamande de di fajar maa ngi toog fii di la xaar xam nga lifin bi coalition e, e, e, lifin bi ana kala welcome bi welcome bi oh. dafa hawa a di waa loolu lañ wax fi ñu ne fo nga egsi wa lolou lañ wax waye Gambia jaral na ma Gambia jaral na man eta kulak ba sik singon ma tok fi di la har lol tamit metti na tan Gambia jaral na na mo na manala be Gambia ngol be kon don hmm wa ngon dan da ba kele wa misa Dabo xana da nga sango dara si ala bi bala nga ñu sango na rayu na na na wa wa yo mi so bu li la topa yeb du nit so bu ge dara nga def dara wa wa <laughs> mbonka yi magi si mbonka yi ma deful dara duma dem he way misa dabo lila topa ci nit gis nga len mané nit ñi ñoma buga ndeysan mo le laftana ndeysaan i na bul jooy xam naa yaram daw na waaw sa yaram daw nga waaye bul jooy dëgg yàlla waaw euh, too bi baax na mhm. xam nga naka si biti neexoon si biti am na amoon na tuuti eh, ke eh, raxa raxa mhm. waaye loolu du ñàkk mhm. bu lépp a baaxee dara baax waaw waaw waaye léegi waaye bu mm. ma tollee sooma mm. ngay xam ne dama duga si tiit nga de ma duga be birkaama ñu waat mi daaba mooy kii moom ma ñaw ma ñaw ma mm. jaala wala la toppa du nit de foofu la ay jinne am man dafa am jinne yu support ah. ma jóge eh, eh, eh, faaraato mm. Euh, ma ñëw fii Busumbala ah, ma foogoon ne Farata moo ne dëkk Busumbala a gën a toj <laughs> yaa nga romb Busumbala ñëw Banjulu ma jógee Busumbala romb Banjulu ne mm, romb Lamin Lamin waaw ma foog ne foofu la hmm? ndeke Abuko ngee toj nga ñëw Tobokoto fekk xar na ñaar <laughs> ma ñëw Tobokoto mu xote am naa Tobokoto West Hill moom am nga fa three hours ma ne five hours la am foofu ma ñëw talent ñu ne ma doo coci saa ñu ne ma yow la ñuy xaar. ma dem be Westfield. ñu ne ma fii ngay fanaan <laughs> bu ma jógee Westfield balaa ma àgga suma mu mel ni na malaaka yi àjjina lan nga yëg nag lan nga yëg bi nga gisee mbooloo mi. <laughs> bul jooy bul masa masa masa masa li ma jooyloo mm-hmm. nit ñi dañ ma bëgga mm-hmm. maa ngi leen a sant di leen gërëm mm-hmm. di leen wax ne seen xol bi suma xol bi sedd na ci ñoom kontaan naa trop ndax lii yombut nit yi nga dem ñëw ku nekk a wala sa mbégte yombut. Mhm. réew mi réew mi réew jàmmala. waaye daabo am na cër fii. Mhm. cër am na ko ci moom li nga nga gis moom dal na xel de. Ah, tiitatoo de dal de. Ah? dal su dee nii la. Mm. jaam ja dal na xel de nii nii nii. li ma gis ni mm. ah dal na xel de. Mm. waaye xam nga affaire élection la. waaye nii nii ma gis. Hmm. daal na xel hmm. nga gis moom dalay sa xel teel ci ah, loolu. su ma ñëw bi ni yàlla baax na. mais hmm. nekk na daabo. xam naa tiitoon nga waaye jamono ji yow ñi ñi nga xaccool ñoo tiit. wallaay wallaay yow daabo yow géew bi ñi ci bokk ñëpp tiit nañ. seen fi di dawa daa daawul. waaw waaw. baro waxul waaye nelawul. baraka yàlla na wante dëgg Ah, baro nelawul baro de gisaguma ko bëgg naa ko seeti laaj ko bom lum mu da bo ba ñibbisee Europe ah. America AC fu nekk ma o di ma waa tooñ nga dëkk di noor yoo ko xar nga ñaar masa Gambia ngol be kon doon man kontaan naa welcome bi baax na mm. mm, ndeysaan alhamdulilah dal na hel jere jere luma len di fay rek moy ma tok ci toogu bi mm-hmm. togal nga wëndeelu togal nga wëndeelu togal nga wëndeelu toogal waaw soo winee ni ngay def ni waaw Wow! Wow! président Dabo président Dabo président Dabo président Dabo kora be america ko kuno ay min jettele ko ah, ah wa wa madin sifa jeje ne ma akabiri abaya ulu ne mo je ka lo ya da ko bendum ah ba ba ba ba alo je mo le jan tetale a gambe a tetale nga tele nga be tele be la nga wesfel te nga nga na ko da jan fa o te a gambe be nga nga tele be la he de ka bi na dabo dabo oto yi dabo rider dabo camion dabo de ka bi pus pus dabo kanya dabo ak welo dabo ah billaay dëkk bi toj na yow waa Europe sax dégg naa kontaan ngeen <laughs> baraka afay ko baraka ah mm. xanaa soo paree nga jox foos le di daala bi mu def démb la xotee ko si yoon bi da nga soona ah. waaw aca ala fo réew mi daa bo moom réew mi daa bo mooy kii ko moom réew mi daa bo ko moom réew mi daa bo mooy kii ko moom sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam yi ji bu yeewoo samar yi dem nañ ba ñëw ah waaye yéen lañ teertu daabo mhm. foor na rëy na mhm. te nag képp ku ne ci réew mi rek te topp ci ginnaaw daabo wan nga ko sa bés boobu cofeelam maa la ko wax wan nga ko bés boobu sa mbëggeel ci moom mhm. wan nga ko bés boobu sa yëg-yëg ci moom te nag loolu lu rëy la ci moom am na solo ñan balaa ngay dem ci bireeg bi rek xam naa ne mm. dinañ nuyu bu baax a baax euh, képp koo xam ne rek yaa ngi nuy bàyyi xel moo moo moo moo moo xam ci réew mi wala bitim réew waaye dafa am ñoo xam ne munuñ leen a ñàkk a bégee dañoo jógee ci gàmmu gi ñu war leen a bégal ndax ñoom bégal nañ ñu ku ci mel ni seet Kebe Seyd Omar Kebe boo demoon bàññaaka fekk fa la fa daje ci ay mbooloo kenn xamul nu mu toll yal na yàlla nangu ñaan yëpp képp koo xam ne da nga demoon ci gàmmu ak foo mën a gàmmo ji rek yal na guddi gi fayal la boppam muy Seydina na bu la fayee doo rus te yaakaar naa ne loolu am na solo noonu lañ ko defee ca Daaru Rilwaan noonu lañ ko defee itamit fa nga xam ne euh, moom mooy euh, ca ca ca euh, Medina Serigne Mass boobu lañ ko defee Paradise Ousmane Dia ak réew yëpp ah dem ci réew mi rek ñu ngi ñu ngi tantal yonent bi def ko Banjul def ko fenen ak fenen ñu ngi la naan ndokkeel yéen di leen ñaanal jamm di nuy nak euh, ki nga xamni ni moy sa xarit di sama xarit. Mm-hmm. Euh, muy euh, nakala tuti way Rohi malik Lo. Ah, suñu xarit suñu ay mayoress bu Banjul di ko ñaanal jamm ak salam bu baaxa a baax a bu ko defé rek waagaan mm. ñu daw rek dem and action break ta dess wa waaw kay. sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi bu yewoo samar yi ji asalaamaaleykum. namm la nag moo tax ma seet si la. waaye defal nga ma lu ma neex waaye. xamoon naa ne Armanti Mbaye rees la. noo tiitee yow. Armanti ah. produit rek laay dundee. afkaan benn la. moo taxit defaral ma ma nekk. waa sama gën gi doyut waar ah moo yey nag armanti ak ay prodogam gis ko ànd ak sa sago day jafe lool ndax li ko waral mooy dafa neex ànd qualité ba ñu jëlee seen yoon ba tey wàcc ñu ko mësuñu wecc seen bépp caf kay product neexul ba neexul waaye armanti ak ay prodogam dara gënu koo neex mayonnaise bi gën na lool ci saa yoo toggee sa palaat bu rafet saa yoo ubbi siwu armanti mayonnaise xet ga foo toll da koy jël waaye tamit noonu lañu amee meew armanti bu neex ay armanti ak ay produits amul lenn lu ko gën. waaw kay damay neex lan tilim bul musa jaaxle Profecto Omo rek ci tilim lu mu tilim tilim bu laalee mu set wecc Profecto Omo moo gën ci yow miy raxas sa ndab moo gën ci yow miy raxas sa karo waaye saa yooyu fóotit jëfandikul Profecto Omo ndax da koy setal ba mu weex tàll man daal gëm naa Profecto Omo bu may raxas sama duus sax moom laa jëfandikoo ndax dafa xob teg si tamit dafay setal wecc teg si dafa ànd xet gu neex waaye li ma ci gën mooy sakkan gi mu sakkan rek Profecto Omo ak xëpp day xëpp lool day seddal xol ndax dafa neex a jëfandikoo te Profecto Omo nangu naa ne mooy buuri omo yi ndax kat saa yoo ko jëfandikoo dinga xam ne lii ma lay wax du naxee mbaay réew mi waa loolu lu mu doon boutique table wala marché foo dem da ko fay fekk Profecto Omo rek ak neex a jëfandikoo. ak prophète Omo mooy waaw ma am ngeen njagaan kaas yàlla tere man suma jabar mu ne njagaan kaas rek la bugg ndax moo gën a sakan moom lay toggee de ah ok seen arrivage bu bees bi ñëw na kon njagaan gaz amaat na ay jeex na <laughs> bàyyil ma ñëw léegi léegi. ciy njagaan gaz moom la ñëpp taamu ndax ñëpp a koy wër rawatina jigéen ñi nga xam ni ñoom ñooy toggee gaz njagaan gaz rek la ñu taamu. te it tamit doomi réew mi ñoo ko fi indi fii ci biir Gambia la ñu koy fiile képp koo xam ni da ngay togg njagaan gaz nga taamu ak ki nekk ci hôtel bi njagaan gaz la taamu. bépp taay boo soxla rek am nañu ko am nañu bu kilo am nañu 6 kilo 9 kilo 12 kilo. 38 kilo ba 50 kilo lépp loo ci soxla rek ñegaan gaz am nañu ko yow mi koy laaj kool leen ci 3714453 mbaa nga fekk leen ca kaanifin ci Johnsonu Sankum Silla gaz bi gën ci gaz yi gaz bi gën a baax te gën a mooy njegaan gaz cey njegaan gaz bi nga yegsee rek la xel yi dal cey njegaan gaz man moom laa wax cey njegaan gaz mooy suñu gaz sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam yi waaw ginnaaw jaar jaar yi yëg la yëg yëbaane yooyu ngeen fi gis nee naa la ñëw leen ngeen fekk si show bi indi seen sponsor ñu sponsor programme bi nga xamante ne fii la lépp di jare mhm. lépp lu fi dugg bu génnee jeex maa la wax lii armante ngi noonu ak ay mbiram ah, waaye tamit armanti ak profecte omo mhm. ñoom wax dëgg yàlla ku ne xam ne ni ñoom ñooy eh, ñoo gën ci réew mi mhm. ndax loolu moom weeranteetuñ ko armanti programme yëpp baax perfect omo képp koo xam ne ngay jëfandikoo omo dawal nga jëndikoo Ibrahima maa ngi lay nuyu baax Diallo Jéeri di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ci place ba waaye ki nga xam ne moom mooy njagaan gaas mm. sama xarit yooyu sama doomu ndey yooyu nga xam ne nee la nga jëli sa gaas bi nga siisu yàlla na sa jàmm yàlla siisu ma de dama mm. amul oto fan yi waaw ah. Ibrahima indil leen ko gaasam bi ngir yàlla indi ko waaw di ko nuyu rek moom MD Ibrahima euh, Babacar euh, Ndiagane di ko ko béggee bu baax a baax foofu ci ca Ndiagane Gas ak Assane Thiam nga xamante ni moom mooy mooy nekk ci moo nekk mooy admin euh, Mariama Ndiagane ak ki nga xam ne moom mooy Ndey di séeri Ibu Ndiagane mi nga xam ne nag moom mooy lépp ah Ibu maa ngi lay béggee bu baax a baax a di nuyu aji dram bi di nuyu Ramatoulaye Ndiagane ñoom ñëpp maa leen di béggee bu baax a baax nee naa leen soo bi yéenay borom def leen lu leen ma nuyu sama benn xarit sama soppe la. Mm. waaw billaay Yusufa. Yusufa ci kër gi moom abal tey ay piir billaay. nuyu naa la Yusufa pare woon na nangu piir yi nga naan ma lan yow Yusufa man maa tax nangu piir yi. non Yus a Yus Yus li mu àgg doon dellu ma suma lu ma dem seeti honorable Halifa Sallah moom mi tamit ci waxtaan lu am solo boo xamante ne wax na ko mm-hmm. te réew mi yëpp bëgg nañ ci am lu leen leer ñu dem déglu ko te des. sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam yi jiin bu yeewoo samar yi jiin li ñu def nag mooy xaar honorable xalifa saala ki nga xam ne moo bëgg réew mi réew mi bëgg ko ki nga xam ne moom moo jël ndaw ñi rek téye leen ci digg loxoom waaye moom it ndaw ñi ñoo ko topp ñoo ko faale kon tàccu leen ma honorable xalifa Sallah ma dugg si waaw kay. kenn moom ci mim réew dawoo dandatu woo nëbbatu woo daaxatu woo xam nga lu ma neex ci moom jantalam moo ma neex ci moom da ngaa jantal waaw maa ngi nangu ziar bu baax macha allah waaw kay jërëjëf wala dëgg la man ne du may fecc nit ñi li ñuy def. waaw foog na yëngatu ci dara waaw waaw yëngu. Mm-hmm. eh Massa Massa Massa Massa nee na eh. moo tax du may faral di. mu ne moom di fecci waaye yéen li ngeen di def kenn mënu na ñàkk dem ci élection yi sax yu ci bëri ay kasetu jàngal lay teg. ndeysaan mu may defal alquran. ma bañ a dem. Mm-hmm. waaye boo jëlee ay bongo ak yeneen yi mun mm-hmm. ngay yëngu. Mm-hmm. te yàlla boo koy ñaan da ngay yaru. wante bu fekkee da ngaa boole ay ay tama ak sabar. ba noppi ñu naan la raw ràcc xaw ma nu nu koy wa eh, waaw xam nga yooyu hmm, dafa xam nga su boobaa boo ne nii rek yàq nga li wa waaw xam nga yooyu la ñuy bañ hmm. wa ngeen jéggal ma rek ah ngeen jéggal ma bu fekkoon ne da ngeen di jàng oh. alxuraan danañu waxtaan wande xam naa yéen mënu leen mokk ñi ngay fàtteegu mokk sax voilà loolu su boobaa dafay nekk problème moo tax ma ne hmm. tey dama ñëw pour wax ak Gambien. ñëpp a ngi lay déglu parce que dama foog da dañuy nelaw. waaw waaw te man dama ki ma gën a mere mooy. Mm. ki dëkk ci réew mi di yeewoo ci réew mi tey nelaw. Mm. ndax réew mi ñi ñaa ngi yeewoo. te da nga yaakaar nit ñi dañuy nelaw de. am na ñu bari ñu ngi nelaw mm. ndax tey dama dem senegal ma gis ñu ngi xoole. Mm-hmm. ma dem Bissau fekk fa ñuy xoole. Mm-hmm. ma dem Côte d'Ivoire ak yeneen réew yi ci topp ma fekk ñoom ñëpp ñu ngi yeewu mhm. wante bu ma ñëwee Gambie dafa fekk ñu bari dina mun nga ma jox firnde bi ci nelawi firnde bi mooy dama bëgg ñu xam lan lañ bëgg mhm. parce que Gambia démb ak Gambia tey wute na waaye Gambia ëllëg dañ ko war a prépare mhm. mu mel ni kon bu fekkee liir la dañu war a préparer juróomi at yi ci kanam ne dafa war a dugg school. Mhm. dafa war a jàng ba wàcc dafa war a am ay certificate yu normal. pour mën a yor réew moom Gambia moom Gambia. Mhm. loolu nag man fi ko gis mooy. Mhm. dama bëgg ñu bañ a pëccaxoo. pëccaxoo bi laay ak pàccoo gi. last week jaar naa fi ma ne leen da ngeen war a sànni seen carte. ndax carte bi moom mooy seen. kaddu wante tey fi may waxee mooy coalition bi ñu may wax. ku nek di ma wonan ma waw ah legi nangu nga pour dem. wa do ma dimbale. da lol la beug mu leer dama beug mu leer. wa ne dag may may ma leral waw aisha ndax man Gambia say buñu bu mbir mi jaxaso ma koy leral ba mu leer naa ni midi. ma koy yagal leral waw kon ni tay ñu jël sama slogan bobu di wax. nay leer. nay leer say khalifa beugul la ndam man lan ko dege nay leer beugul la ndam say nay leer beugul la ndam say nay leer khalifa ngi bëgg a dem de yaa ngi bëgg a dem yaa ngi bëgg a dem eh, eh, eh, yaa ngi bëgg a dem bul dem bul dem yaa ngi tele ci man lañ ko dégg masa masa doy na doy na doy na xam nga doy na waay xam nga kon ah. bi ma koy leeral 2016 ci rajo yeeg télé yi booba gaa ñi nekkuñu fi dëgg la ñu bari dañoo yox mm-hmm. wante ba mu leere ku nekk gisatul ku dul sa bopp dëgg la xam nga loolu dafa doy waar mm-hmm. léegi nag bu fekkee ne nag xalifa ak guddi la. moo mhm. ko dajul mu daj boppam mhm. léegi comme daj naa sama bopp nekkatuma fii du coalition ak kenn. ah leer na. man xalifa bokkuma ci coalition. Mhm. ndax bu fekkee da ngay bokk ci coalition pour folli nguur. da nga koy teg ci ay éthiques yu leer. non gis nga man kii fa muy xalaatee ndaw dafa xalaatee. fa muy bu fekkee da nga ni ki fi nekk laa fi jëlee te teguloo fi lu ko gën da ngay tardé réew mi. ah ndeysaan da ngay yow man man damay daanu fii de. 2016 2016 ah? ku ne xamoon na li tax. Hmm. ñu bëggoon yaaya jóge fi. waaw waaw. moo tax bi ñu coalitionné ma ànd ak mhm. wante fi mu nekk ni duñu ma mën a jox benn resin mhm. te bëgguma réew mi tardé waaw waaw kon man xalifa tey bër laa moo xam damay demal suma bopp waaw am jël waaw lu ma am jël ndeysaan na yaram waaw na yaram léegi nag kon li ñi ne kon di wax xalifa dafay coalition ak parti wala demb mhm. na seen xel daal ni ñu bëggee réew mi bëgg ko yóbbu ci kanam noonu laa ko soxla kon seen carte yi man waxuma ne ngeen sànnil xalifa waaye xool leen li leen xalifa di defal ci hmm. yi muy leen di wax ak li mu leen di propose pour bu fekkee ne ëllëg toog na nekk président ngeen ne xalifa moo ñu ko digoon hmm. man lu ma wax def ko bu ci yàlla andee yaa ñu saf ñu saf la mbir mi safante la yaa ñu saf ñu saf la mbir mi safante la yaa ñu saf honorable yaa ngi bëgg a dem de. non dem ma dem yaa ngi bëgg a dem ba honorable yow xoolal yow kilifa nga nit ñi dañ la ndaw ba pare lii laay tele la yaa ngi yan may ngeen a teg seen gémmiñ wala lan eh ma ne masa masa waay kii kilifa la bu guddi fecc yéen a ngi koy fecc loo bàyyi leen li ngeen di def nga ñoom nag fi ñu ko jàpp moo baax. yow kon mi ngi bëgg a neex kat non neexagul ah. sax dama bëggoon rek ngeen wax loolu. wande yéen dinaa gisee ak yéen. waaw kon ma bàyyi la kon ma kontaan ci réew mi di wax ne xalifa mm-hmm. bëggul ñu koy jaxase ak réew mi mhm. wante kenn gënumaa bëgg réew mi man dama bëgg réew mi ba bu ma gisee kuy ku ne Gambia laa dëkk day mel ni yaa man ak yow ñoo bokk ndey ak baay noonu la bu fekkee ne daf ma am lu may naqari mooy su ma gisee Gambien buy buy sonn mhm. bu bëgg dara te mënu koo am mu mhm. ni Gambi rëyul naqari wut liggéey dëgg la nañu fas euh, nañu euh, euh, boole xol yi def Gambia mu nek ben suñu ko def rek rew mi neex mhm. kon na khalifa ngi dem bu delu se rek mu gën fee wa wa mo ngi dem te ñëw bu delu se mu gën fee neex ngi dem te khalifa ya ngi dem bu ma dellu see rek mu gën fee neex ngi dem te ñëw waaw bu dellu see mu gën fee neex ngi dem te ñëw ya yaa ngi dem te wa waaw waaw mu gën fee neex ya ngi dem te ñëw eh, sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samar yi jiin waaw kay. moom nee ah, man daal gis naa ne Khalifa Sall daal kenn du moom. dantal la mu ne moom daal coalition. bokkul ci ay waxi calaaw calaaw ndax coalition nañ coalition génnee fi nguur gi fi ne. te tegoo fi dara daal moom dalul xelam. Mhm. nee na mos li réew bu mos a am. Mhm. maanaam dafay gën a doy waar. maanaam kii li mu bëggoon def du ko def yéen bu ngeen ñëwee du ngeen xam fu ngeen di taxaw. Mhm. gis nga borom xel nag moom buy wax dañ koy déglu mu nekk lu am solo. xam naa ne li ko yàlla may macha allah. xam-xam la am xel mm, mm. bu ko ko yàlla joxoon réew mi de. Euh, dana waar doy na waar Khalifa Sall ngi noonu ñu nag ñang baalo mm. koo xam ne ku baax la mooy borom xam-xam la. mooy muy Alaaji Idi Diop. Mm-hmm. mi nga xam ne moom mooy CEO bu euh, Atlas. waaye tamit nekkati CEO bi nga xamante ni moom mooy. Euh, Gambia Chamber of Commerce. Mm-hmm. ñu ngi leen a bu baax a baax moom it yaayam yàlla xam na ko ñu ngi koy jaal di ko ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fi mu jóge waaw wallaay ndeysaan ah. waaw di ko jaal ñoom yàlla yërëm ko xare ko ci àjjana firdawsi yàlla seen xol barke lim fi bàyyi ñoom Mr Kandji ñu ngi koy jaal mu nekk lu am solo mm-hmm. wallaay ndeysaan bu ko defee rek xali ñang mm-hmm. xam naa léegi tey ñu àgg ca njoboxtan la waaw dafa am na koo xam ne suñu yaay la mm-hmm. alar ba ji passé daf doon ngénte doomam ku ñuy wax rek maam maam booy jaase mhm. foofu ca Churchill's Town mhm. euh, moom nag wax dëgg yàlla euh, tey la ñuy euh, naka sa alal bi passé lañ doon ngénte doomam foofu ca kër ga mhm. ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax di ko ñaan ak waa kër ga yëpp ku ci mel ni aji faatu aji faatu moom borom ceeb bu neex bi ak nga xamante ni moom mooy Fat Thiam Fat Thiam Sow ak Khady joom ñoom ñëpp ñu ngi leen di béggee baax a baax ak Ramou Jaase waaw loolu am na solo ñu yëg ñàkk yëg ñu xam ñàkk xam programme bi bokk na ci programme bi nga xam ne àdduna yëpp koy seetaan mm-hmm, mm-hmm. Eh, te bu ñu sañoon taxaw fii képp koo xamante ñu ngi jot bataaxal bu jógee ci yow dinañ la tudd yàlla xam waaye waxtu moo ñu xoj ba li ñu bëgg a def bu ñu ko def waaye képp ku toog sa saal jàkkaarloog ñun ñii toog fii di wax mm-hmm. jàpp ne ñu ngi ci sa biir xol waaw te yëg-yëg bi nga am rek loolu lañ kon ñu dem ànd ak surprise bi nga xam ne moom lañ leen di indil muy last épisode buy tëj programme ñu des wallaay sin ma ngay nelaw bu Uyewo samari. la la la la la. waaw maam xanaa yow demoo si ngénte gi waaye kii ngi lox di. maam. xanaa demoo si ngénte gi wallaahi manuma dem sa ngénte ga. waaw kon xanaa yow yow sangoogoo sax yoo mii nga dem si ngénte gi ba pare sangoogoo. sedd waaw waaw kon xaa ñu tàngalal la ndox tàngalal tàngalal ndox ñu tàngal ndox mi nga sangu ah. maman di nga sangu ah, kay ni nga loxee nii yow sa maas gi sa fu mu nekk nii moom war nañ sax di sangu sangu ah, bu bëri da sangu de ah fo nga to nga nga simi ko sola ci ñaat sa yire nga noppal bal mako waxati bal boko ma ci wa mam ni nga loxé ni upp na de bu way de dana sangu dede mam bul sangu yow xaaral nga dugg ci biir nga ci sa yire tangalal man dox mi mam fu nekk yow ah, nga mak yow fu nekk ni jëf nga sangu sangu man ba ma da ah. guna ba tay musuma nebal wa legi xam nga noy def legi neen dem ci biir nga nga nga ci sa yire ah. nga sol lu diis jarul nga sangu bala ba sa sol lu diis sangal len len man wax suma ya ya eh. ah, eh. ya, ma dama bañ ta sangu rek sa wax bi du stop. bari nga wax ya mo ndaw ya mo do bari nga wax assalamu alaykum waaye door nga dee ko xadi ko mu ñew ana mère beus ah suma mère baangi mère beus yow. wa mère beus te looy lox ni nuyuma ay la la la. mère beus yow looy lox ni dama sedd. nuyuma wa waaj baangi ni xalal ma jox. Eh, mère Beuss ndeysaan mag la léegi. juróom sedd bi ak ah kay fépp a sedd. fépp diit mère Beuss yaa ngi may loxaaleel di. ah Ilaah Ilaah. Massa dafa sedd kay kon sedd bee lay loxloo nii. Mm, oh. Massa wàññil sangu bi da ngay sangu suba bàyyi ngoon. waaw bu ngoonee nga toog soo sango suba nga di woo nga lam ba sa yaram bi tooy. waaw waaw. Mm-hmm. yu de yow de xam nga ni ne ah pneumonie. pneumonie feebar sedda la. waaw. boo ko loolu si yoon fi mu ne nii lu mun na mun nga koo am. Mère Boss noo def. xam nga fii temps yi moom defoo bës fenn lu tax. xam nga mën na maa def bës dafa sedd. ah war di def bës nag gi ba ma seet si la tey. xam a dem. waaw dem nii. yow téye saag war a dem ngénte di lox ba da dem. la ilaha illallah muhammadu rasulullah ubbe ubbe ba fi waaw waaw kay yëgal lii diw la moom laa bëgg laal te bu ko sangoo du ko mën laal waaw dégg nga fi xalé yi li ma gis ñu la def ba mhm. du handu ma ci mhm. man meer ba duma def lolu mhm. karité nga wara a diwa diw nga la nga bi le suma faré ci la do xol sama kanam gi bam jek yow li seetu moto la di wa seetu moto nga amé sa baat <laughs> meer bës yow ci bës rek nga dëkk man da da def ba mu baax kay yow kay def nga ba mu baax maa ngi wax ak Sénégal ak Gambie ak àdduna bi yop lima wax moo da leen sangu gis nga fi ne lu may sedd sedd danaa sangu buñ ma tàngalee leen ndox def ci karité bu ma noppee jël sama diw gi leen eh, laal ko jël sama seetu dégg nga moo gën ndax gune yi jigéen yu bari fi leen duñ la sangu mm, sama sët yi ci bari duñ sangu hmm? ñetti kanu yàlla fañ ko ha mu ñeme ca wana wa patapata daw nañ te li ne wóor na wóor na bien hmm. jeeg yu ci bari sax fi ni sangu ah ku fanaan ak sa jëkkër nag meer bees boo xëyee boo sa jëkkër ri tamit sangu waaye boo fanaan ndax nit ñi hmm. sa jëkkër boo ba seet boo ko yor yor bi tàng nga ragu sa yoon xam nga ne lekk gole ko kon aleykum la waaw géy géy ma dama xaar ñoo sango xanda déedéet yow sa tànk day daa pënd waaw yow sangu nga man sangu naa bu baax gisoo maa ngi leer nañ waxu la dëgg de yow maam yang sangoo yow sa tànk yaa ngi pënd bu baax a baax sa poqotaat yaa ngi mel ni wala ku mbot maam yow yow moo la nga xam ne yow doo sangu ni supame xam nga netatu sa poqotaat man moom faa la tane yow moom maa la tane moo xam nga poqotatam yo ko tere mu ngi foroxa foroxa foroxa forox ba ba ne toll te doo dina ci morom de suma sëri duñ la sanku ba dina ci jeeg juraroo mu ngëp seen saak de weles weles ñetti fan yi yàlla fañ ko xam duñ sanku buñ ne ni la poqotaan ba nga da bëgg a mu mel ni boppam janax boo bu wallahi xam nga ne loolu baaxul comme poqotaana mel noonu xam nga ne àdduna bu la rax ci dolli apprenti yi boo duggee ci seen oto yi la fa ngay waaj a man fan kii fan yi wàccu naa ci ci oto apprenti boo xam ne ba ma juutoo hmm. tuboo jo ndaw ja laa ilaha illallah ba mel ne géej guñ weer rek ba ne gi ba tuuti ma daanu te apprenti la kooku fa lay leer ne weer naa ndox ci jëmm ji le daraay noppi seen mbaxana yi le buñ ko duggee seen bopp bi buñ ko si méngoon la duñ julli kawar goo xam ne mu ngi mel ni poqotaanu dof ah nga ne nit nga loolu fa baax de leen sango gune yi leen sango ay waay jéggi de leen sango sango baax na ndox mi fa si baax ah borom puus puus yi le ñoo gën a forox koo gis ah man xama pro puus puus yi seen puus puus yi le ku ci gën a forox weeru yàlla kenn du bi buntu ba <laughs> ah saw rek de waaye kenn du fa sangu loolu fa baax ah football kat yi leneen ku ci dem football yi ba guddi boo ñëwee tànk yi ngay ragg jël ndox mi te tooyal sa ngel sa wéer a ko raay ci sa yaram yi gune yi fañ koy def ah doomi salaam jële num tuddati ibrahima moom sa baay mu ne nga sangu ibrahima baal nëbal sa baay mu ne dee sangu yaay faal waxal Ibrahima Moussa Mbow. caméraman ñi de enu caméra yi di jël. ñi de enu caméra yi ñu ci ëpp. ñett benn tubay la ñu am ñetti fan. duñ ko semmee ndax tubay ji nu gën a foroxee rek di gën a tàng moo leen gënal sedd bi ah loolu fa baax. mère Bos. da nga gëj def bos waaye tey def nga bës tey def naa bës. aha kay a wax. aha kay sangu yow paa boo xam ne ñetti xabsaan ngay tegle te boo ñaqee bo boo seelaal sa mu mel ni mbëtt moo dee. loolu foo baax da leen sangu. juróom tàngalal ma ndox ma sangu waaw sangu. bu ngeen bëggee li ngeen di togg nit ñi di ko lekk fa ngeen ay sangu. tàngalal ma ndox mi yow. ko tàngal sa ko tàngal sa sin ma ngay nelaw. bu yeewoo xalam yi jiin bu yeewoo samar waaw kay mel na ni sa brasse bi jàll na xam naa ñi seetaan kontaan nañu bëgg nañu waaw waaw waaye waxtu mi ñi jàmbu Euh, tey nag waxtu daf ñu xoj ba mhm. euh, sama yaay yi ma daan nuyu yëpp ñu ma daan déglu maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax xëy na du ma mën a tudd ñëpp parce que ñu ngi may wax ne ma na tàkk waaw waaye balaa maa dem rek ma wax leen euh, queen of the king mm. waaw ne ma solal nga demee ko ci sa waagaan suuba mhm. waaw wax dëgg yàlla mu a abaay bu rafet te xam naa ne ibaadu yi dinañ si gis seen bopp sama doom ji ko rek moom laa jàkkaar lool si man maa bëgg lii ma tegaleen ci ne kaala bu baax otal beneen doom man dama am doom nag mm-hmm. waaw dinaa leen jox nomba bi mu ci suuf screen bi su ko defee rek yéen ñi seetaan ngeen daw dem ci American shop foofu ca yoonu Kosoro uh, Turntable fa la boutique ba nekk yu baax bagage yu yu baax yi jàllabe bi moom rafet na yaa nga Dubaay waaw waaw dem naa Dubaay bu yàgg indil ñu ice cream waaw waaw dégg nga waaw mbaa boo fa gisee karab nga napp ko indil ñu Dubaay karab waaw wala super sip Dubaay lu a eh, jaarani ah? ah bàyyi ma joxe kon man fi ma jógee. waaw waaw xam nga kalaam gi laay bañ a dégg ci Dubaay ga kon ma jégalu baax a baax ah, mm-hmm. lii ma sol nag xam naa kos bi ñu bëri ma ko laaj last week bële eh, may leen kos yi bëri na te lépp macha allah dafa rafet gis ngeen bi ma soloon keroog ni mu rafetee tey itam gis ngeen bi ma solaat dafa rafet macha allah mm-hmm. lii ma jiital cotine la mm-hmm. kos bi tam macha allah gis nga ko cotine la 100 pour cent Kéba Fall sama rakk ja ca Latrikunda opposite marché Latrikunda boo fa demee rek mu ngi jàkkaarloog Massalikunda bi ci highway biir Kaama bi foofu la Keba na nekk mooy façon sob nga xam ne moo gën a rëy ca a rëy ca tund woowu waaye nag di jaay bagage yoo boo bëgg rek boo eggee ci Keba Fall te léppam cotine la macha yomb na baax na rafet na garanti na demal foofu rek mu ngi noonu nomba baa ngi ci suufu screen bi ngeen jël ko rek dem mu dimbali leen jàppale leen ci bagage yu baax ndax moom ba jàngi Assane Ndiaye Imam Ousmane Dia may naa la abbaay bi de nga ko may simmi ko ngir yàlla nga jox ko bàyyil di maye ba pare bu ko laajee nga naan ko xanaa dugg na fi génn fi imaam Ousmane imaam maa koy seeti ba këram yëre jigéen ana amul soxna lii am na soxna waaw waaw waaye léegi may ko soxnaam waaw soxna moom ko su ma ko tuddee programme bi kay jox ko yëre bi kay soxnaam laa ko jox ok li bañ mooy mu ñëw di ma kalaame ak yow naan ma la nga waxoon defoo ko man imaam dafa ma musa kalaame ah? imaam dafa ma musa kalaame waa marché laati kunda marché waa mbaari yàpp ba foofu la salaam ne foofu moo mooy yëngal gësam fi mu ne salaam borom latir kunda ca mbaaro yàpp ya yëngal gasam waay ah. ya yëngal yiw sin ma ngay nelaw xalam yi jiin samar yi